peut réagir ça c'est tout à fait normal moom itam joxe na ay leeral ginnaaw bi ñu ko auditionné ba pare Kajo. et j'espère que euh, keneen ki dina ñëw le ministre aussi dinañ ko entendre parce que ci loi bi amul lenn luy tere ñu ñu ñu le un ministre. donc euh, j'espère que moom it l'enquête va aller au-delà de mm. de docteur cher Dieng moom it ñu déglu ko pour que sénégalais yi mën édifier parce que ba ba au moment où nous parlons amul dara lu leer on a entendu qu'une seule version moom au moment de parler ay ay collaborateurs ministère am la indi ñu wax mm-hmm. ça n'a convaincu personne donc le, le, le, la situation est, est restée telle qu'elle on attend de voir la suite parce que dès l'instant où ça a été déclenché te loolu peut-être mën nañu jàpp ne c'est un un signal fort pour la justice te loolu j'en suis fier au moom euh, justice di jël en charge un dossier boo xam ne ça concerne des gens qui sont au pouvoir gëjoon nañu gis yu mel noonu donc on attend à ce que ça aille jusqu'au bout et que le ministre concerné aussi moom ñu déglu ko par rapport à ça que les Sénégalais puissent être